ci ñi nga xam ni noonu la gën a gaawee laaj nañ ma aussi ci ay affaire mandat j'ai un défaut mooy lima xalaat lay wax te duma toppatoo li nga xam ne moom la ñeneen ñi di xalaat je le ici ba je dugguma ci yenn débat yi jule le dis bariwul ñoo xamante ni toog naa ak ñoom ba jëw nit bu amee bariwul su ma mënul wax ci nit lu rafet damay maanu ci ay mbiram président Macky Sall yàlla boole na ma ak moom sañ naa taxaw nag ci kanamu Sénégal ne musuma dog kenn mu neex mu naqari wala nit ñi jàpp ni dafa neex wala dafa naqari ba ma wax loo xam ni buñ ko nettalee dinaa rus yàlla nag mooy dimbali nit parce que nit ku nekk di nga traverser des situations très compliquées kooku yàlla moo lay dimbali ba ci yenn moment nga mën a téye sa sago maintenant question wu mandat question de responsabilité personnelle la waaw question la boo xam ni moom la concerné moom mi mu concerné waxagu ci waxagu ci s'il vous plaît ku nekk ci ñun nag am nga droit am yéene am ga droit am bëgg-bëgg ku nekk ci Mais il n'est interdit à aucun Sénégalais de faire acte de candidature. À aucun. Sous constitution, lan la wax dafa ne le mandat est de cinq ans mais nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs ce que dit la constitution alors monsieur le premier ministre mais alors euh, public bi may ma tuuti public bi amuleen droit ma baamtu ko ci wolof yéen ñi ci kaw ak public bi amul yoon mayu leen ci assemblée bi ngeen tàccu ngeen wax waaw walla déet du dul toog dégloo loolu lañ leen di ñaan ngeen dé ngeen def ko defee ko noonu merci alors premier ministre vous avez la parole alors vous les choses allez ne bàyyi yëf yi pourquoi vouloir se battre aujourd'hui sur qui doit être candidat qui ne doit pas être candidat tey ban intérêt la am pour le Sénégal quel sens la am pour le Sénégal mais loolu bu ma ko bu ma fi nekkee di wax dëppootul ak sama la nee naa leen fii laa toog fii laa taxaw nee naa leen gëwuma ay élection mais yéen ñi ko gëm kay bàyyi leen moom ma bañ ko gëm toog jàpp sama ñaambur liggéey c'est mon droit le plus absolu c'est mon droit le plus absolu mais xam lan moo bon jàpp nit ñi yaa leen gën a muus parce que erreur boobu ku mu dal rek juum nga mooy nga wax dara am sa réponse bëgg waa ji wax loolu par force bu ko waxulee nga ne ko non naa fekk nga wala nangam nga wala nangam mais plus de tolérance laissons le libre jeu sénégalais yi mën nañoo tànn ku nekk candidat di nga jaar conseil constitutionnel dinañuy afficher liste bi ne diw ak diw ak diw mën nekk candidat mais ginnaaw conseil constitutionnel mais c'est au peuple de trancher tout ça le peuple l'a régulièrement fait le peuple l'a régulièrement fait te musul am coow mais bu ngeen di exclure nit day da ngeen ko ragal <laughs> honorable da ngeen ko ragal xanaa mais problème je vous <laughs> Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre.